Talla Ndiaye nuyooti naa la nuyooti internet yu Leewtoo TV yi tey nag moom ndoguwuma damay waxtaan xanaa gars yi tey du ndogu mais waxtaan la ki may waxtaanal nag xam ngeen ko guy gi gi bu école Mor guy gi bu Géejawaay waaye guy gi bu Ceneba wala sax guy gi bu senegal moo gën a yomba ah. champion euh, maa ngi lay nuyu mbaa yaa ngi am jàmm waaw d'abord auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim man sant yàlla julli ci bi sant sama ñaar waajur nuyu suma sëriñ si Aseg borom digal di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg te wér di nuyu adduna bi yëpp nuyu sama papa sama yaay sama xarit général nuyu sama xarit Cheikh Abdou Karim Mbacke borom Makarim Axla nuyu Cheikh Labi Diop sama xarit borom xaas nuyu sëñ Moroum Seye borom Tawfeex nuyu Abdoul Mangane ci Dubaay ak Mouhamed Mangane Tamba ak famille Mangane bi yëpp du bàyyiwuma kenn nga xam ne dañ dañ may fekk foo xam ne nekku fa ñu toog di waxtaan ak man di ma motali di ma soulager ba tey bu dara amee kon nag la ngeen fàttaliku nuyu sama koy asek naa bàyyi ma kenn président bi Raoul Dere sama xarit maam am ak ñi xam ne vraiment ñoom sama taalibe yi ñoom mooy soutenir comme nii nga ni waxtaan parce que loolu mooy li nuyu waa Leewtoo bi nga xam ne vraiment ma seet si tey du sala du sala préva ah, parce que nee na chaque jour man la Babacar yow boo ñëwee bu ñu waree wax dañoo war a wax bu waxul dañoo war a wax ndax bu ñu bokkee génn ñoo bokk bokk oto bu ñu yóbbu bu ñu jël jërëjëf. am na solo léegi man li ñu fi indi tey lenn la mooy mbër mu toll ni yow ndam li nga jógee daaw sa digganteeg Siteu guy gi nga nar a toog ba année balance sénégalais yëpp nag ne ma loolu guy gi da cee war a wax lu waral année balance bi wala da ngaa a toog bañ a bëri ren. waaw mais est-ce que man rek maa nar année balance bi may bëre combat Siteu bi dafa am wax boo xam ne dama ko waxoon bàyyiwuloon ci xel. nee naa leen comme tegalaan vidéo ma leen combat bi man yóbbu ma fenn. day tëj samay bunt. bu la fente nga jël ko bëri ko. non déggoo li ma la wax de tegaatal image yi dama leen ne combat bi yóbbu ma fenn day tëj samay bunt. nu mu tëjee say bunt. bi maanaam Siteu li ma booleeg moom du palmarès. lu leen boole woon xaalis la ak examen. xaalis ak examen. ku doon examen ci yéen ñaar. moo doon examen te effectivement doon examen jom ak xaalis moo ko indi ci man xam nga nit boo jàngee ba am di góorgóorlu ba war a def bac góorgóorlu nga. ñaar moo foom positif négatif jàll wala bañ a jàll léegi moom loolu doon def léegi nag yàlla def na jàllul day dem seetiwaat moom da ko ibbil buntam moom mu ëpp adversaire mais man day tëj suma adversaire ndax fa tey bu mu fekkoon daan na sax li may gën a rey mais nii sax xaw na tane mais bu fekkoon daan ma la may gën a rey mais nag loolu moom sak la ci moom man wàcc la ci man neexul nag ci dégg-dégg mais ku kuy dégg ku ku jàng filo dëgg dëgg dëgg nga nekk filo di nga xam li ma wax filo filo moo xam bi maanaam Siteu lan moo di filo man xaw ma filo de. non filo. waaw mooy ku ne yàllaa ngi nii nga ne ko ana yàlla. mu la ndax yàlla am na nga ne lan lan moo tax nga ne yàlla am na. ah maanaam tamit Babacar tey yow yaay Babacar. mais lii Babacar dëgg lan la est ce xam nga lii Babacar. mu ngi nii toog jàkkaarloo. non non kon xamoo filo lay Babacar dëgg loolu mooy filo quoi xóot dama xóot. daa xóot ah. waaw. Talla <laughs> léegi su ma ñëwee ci li nga wax noonu d' accord ci côté li nga wax Siteu moom macha allah champion la mu ngi def ay preuve laa la wax ne dama koy waxee nii. mu ne dafa xeeb Siteu non non. jom ñu bëri mbëree ñu ne bëgg bëri man. yàlla def na mënuñu examen pour ñëw moom mu góorgóoru ñëw mais examen boobu moom moom buntu wërsëgam la ko ibil pour ci làmbam mais man damay tëj même su ma ko daanoon sax man damay tëj baa bul jël sama waas am na kooku moom dama koy cof parce que li nga ci wax bari na muy Ama Balde baaw ga nag na yàq émission bu ma soyoon kooku da ngay def puus mu jàll la tax ma da ngay puus wax ci moom dafa ma tooñoon dafa toog ni guy gi da ngay jaxase guy gi buy bëlal suy bëlal nit du nuyu nit guy gi kenn xamul ba xam explique ay détails pambaay yooyu et te li mu wax yëpp foo faux ton tontu ko ci ñaaroon ba ñett mais bu yàggee dañu yaakaar ne man damay tooñ wala ma bëri wax te demewul noonu man su ma nawloo man nawlool su ma nawlool du ma ko nawloo point barre man dama ko nangul champion moom na ma nangul sama man bi ñuy bëree dama ne Aziz Ndiaye kii moom ëpp palmarès moom moom ëpp kase fay ko loo xam ne moom moom moom arrangé na ko man loo ma fay ma bëreeg moom xam nga ko ku ñàkk ñaan du ko def ñuy bëree ma jël sama matukaay ba ma sëkk. la ma woon signature laa ko wax dina la duma naa la daan ñëw naa duma naa ko daan naa ko kanam nga xëy na yàqu na toll na ni bàmmeelu mbër ba mu xëyee mënul sax xool bu baax ba ñu def apparemment 221 vidéo yaa ngi fi mu toog ne guy gi bantamba seet ko dafa mën a xeex mën a bëre mën a lépp mu xëyaat suba teel ñëw yàkkam lu mel ni xeme naan est ce que ñeme na ma est que ñeme na ma yow bu fekkoon man daf ma dóor la ma war a la est ce que ñeme naa ko loxo benn tànk nga song ko sept fois muy bëre yow ko Pikine ñëpp wàcc li ñu wax mu mel ay sangalal sa nopp yi gars yi supporté naan ama ah yi mujj gi loolu mel ni ay pot yamb yu def soo di la sonal mujj gi gars yi noppi ma def la ko 2012 ñëpp gis ko nga ñëwaat ñu naan la yow la yow la fausse information yi ñu koy jox moo baaxul négatif lañ koy jox positif ba nag moom <laughs> na ko jéem a déglu ji du man ak moom duma ma ci waxaat nag point barre tey laa ci mujj waxaat li tax ma doon waxaat leeral la parce que man du ma moromam ci côté yëpp su ma doon bëreeg moom bu ma ko vidéowul te la laay waxee suma ko vidéowul su ma ko dóorul mu daan wala su ma bëreegu moom ba duma ko wallaahi wala zimbul ma jox victoire wala lu askanu sekkan raxasoo man ma naan ko kon nekkatuma se nekkatuma sët Omar Ndak parce que am na loo xam ni man ci man la nekk moom xam na ko. ni ngay waxee est ce que noonu nga war a boo déggee ma wax que nag olof dana ko bopp doo moom ah, li ma lay wax sax mooy que ni mbir moo xam ne yow yaa ko daanu nga wax 2012 vidé ko magi Pikine ngeen bëriwaat mu am si kaw ndam. tey nga retourné toppaat ci koom. non topp ma ci koom waa na leer loolaa bëgg mu leer. ah nga mel ni que yaa topp ci koom ndax. topp ma ci koom loolaa xam nga romb la xam nga boo ci waxul nu ma rombee. benn waxal romb bi fan la. non yow laaj est ce yow laay laaj yow mi interview. man moom mënuma la dama ne est moom ñàkk maa romb moo rafetlu mu bàyyi a xel. te am na loo xam ne du ko wax bis bu waxaatee nag ma wax lu gën a garaaw mais ñàkk ma romb moo tax ma bàyyi ma xel suñ ma romboon tey demee ne neneen mais sant yàlla luñ foog amul man benn nit laa bu jógee ca raw ñëw di fayat ba tey yàlla def li muy def. am na solo. léegi waaw foofu dañ non dama bëgg mu leer man du ma ko laaj wax ak mais dama li tax nga doo ma moom wax ko dama ne la waxam tey laa ci mujjee wax mais dama ne bu te ci télé di wax na wax cadre làmb du ko tontu mais ay guy day jaxase guy gi ñeme na ma guy gi nangam nangam pamba yooyu yooyu noonu dadaay mayuma ko nit bu dee nit kuy mbër muy dem waxuma nag mbër moo xam ne demoo topp internet bi ñàkk fay ratatat di wax du ma bu dee booy boo xam ne topp internet bi wax di ñàkk fay du ma la tontu mais bu dee mbër moom da ngay dem comme man moom mi ngi ci yoon maa ci yoon toog wax damay génn directement tontu ko man noonu laay dundee. am na ci booy yoo xam ne dañuy génn ak ratatatat affaire yooyu man moom parce que booyee moom samay loxo lañ jaar ñenn ñi nga xamal leen li liñ bëgg détail parce que man ñi ma mere ñëpp xaaj bi sama àll lañ ma meree ñëw yooyu sa nopp bi guy gi lii amul kër fii amul kër fii fekk nag li wax c'est faux nga tourné joxe leen dara ñu dem defal leen yàq sa rek kenn xamul man dundee ma noonu lu muy dundee ko dund ngir yàlla sentir ko waaw noonu dundee ak suñu ak ñi ma bëgg di ànd ak man ngir yàlla. am na solo mais léegi dama ñëw ci li laay mujjee euh, mooy Lac de Guiers dafa war a bëri ak Boy Niang te Boy Niang ci ni ko nit ñi waxee raatale na moom. waaw ñaan yàlla boo dugg ci dañ ne teg na ba lijjanti na mbër ma fa ne. di ñaan yàlla rek yàlla. yàlla may ko ndamu set ñu ngi liggéey. yéen a ngi liggéey ci liggéey bu baax ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ci côté yëpp dèjà nii sax ñu ngi gën a rafetlu suñu entraînement pour buñ tëbaskee ba buñ korité ba pare incha allah man song ko bu baax suñu. léegi nag fi may parce que dafa am loolu du mu ko daan dégg. doon naa ci dégg mosuma koo fekke ay xaw ma marmite di kër lañ koy tudde xaw ma ñu ne guy gi da ko daan def est ce que loolu ren mooy nekk juróomi bi wala. waaw sixième édition baa ngi nii vraiment xam nga doon ko defee euh, asek na doon ko defee comico mais bi waa comico ñoom ñëpp ñoo dajaloo ñëw ñëw fii gàddaay te asek na te te teere dex gi ànd ceeg président bi rawul xam nga teere daaru ak dere ak sama taalibe pap ñoom maam am gars yi xaaral ma wala sax ñoom ñu jàll parce que def naa xam nga kon da nga koy def non dañ koy defaat dañ koy defaat dañ koy def parce que si Ablaye Diop borom xaalis def na ci lu rëy vraiment def na ci lu rëy. Ablaye Diop sunu sëriñ. sa sëriñ waaw. ku baax bëri moom di ko moom. <laughs> non daa baax de ñun ku baax baax la moom man moom wax dëgg yàlla suma xarit la. si Ablaye Diop suma xarit di gërëm nag di profité du nuyu Mangane Dubaay man suma xarit la suma kilifa la suma conseil suma conseiller la Abdoul Mangane Dubaay fay Mangane bi yëpp sumay xarit lañ Serigne Madou Seye borom toofeex maa ngi koy nuyu man dama am sens ci kilifa yi mag ñu baax ñi man da man dama xam loolu man man lu jaafe laa am ci loolu ki ma lay wax nii sama xarit la kilifa la mais day jël temps muy màngantu bàyyi day jël temps am di ma benn bennal àdduna di ma guy gi bu changé communication da ngeen ne gi mi il est wala li muy jàng xam nga léegi maa ngi institut di jàng. Ah, yaa ngi jàng sama niveau am naa niveau pré-diplôme bi génn. waaw génn. kon léegi da ngay làkk ay lakk yooyu fi mu nii. yëpp service lay doon xam nga loolu dama ciy kontaan. yu mel noonu. mais président bi. ku mel ni Waré Sarr. maire Waré toog ak moom ku mel ni moom ngay jàngee ci moom àdduna damay jàngee ci moom àdduna xam nga dugg ci famem kooku doomu lul xam nga kon lool sant la. sant la mënoon naa ko fi mu doon mu jàppee ma comme neneen mais maire bu ma gisee li may li may njëkk àdduna la may njëkk indi conseil kon loolu kooku defe naa ni kooku amoo fayam Wally Sarr moom du ma waxati ci moom dama koy bàyyi ak suñu borom dama koy bàyyi ak suñu borom. waaw léegi léegi dañuy ana président bi ngay wax ne moom mooy. ji dama woo leen parce que live direct la waaw bàyyi bala. gisoo ñoom ñoo defal seen kii yi ah, kii la woon euh, dañ ko bëggoon defal surprise. bàyyi ñu ni lu baax daal kenn du ko nëbb. dañ koy ñëw. Mhm. ñuy waxtaan man ak moom. ma ne ko maa ngi nii ak gars yi marme de kër bi sax la ñuy waajal. fekk ñu def téléphone bi mais libre. mun leen carrément kooku suma xarit la mi ngi may dégg duma bàyyi ma fenn. guy gi lu mu dugg dama si dugg. bu ci kenn duggal loxo maay def lépp sëñ Abdoulaye Diop borom xaas nit nag bu la defee lu baax. mag ñu baax dañ ko bu la defee lu baax bu fekkee làmmañ munu loxo munu koo fay. bu làmmañ nopp moo tax ñu noppiwuñu. di ko wax chaque di ko moo waral tey jii bi ma seetsee Savel ak président waa ngi nii ñoom deree ngi nii xam nga ñu wax la nga dégg après. waaw ñu waajal di la jox tamit yow rendez-vous. incha waaw lañ koy fekkee tal ko nga ne tur bi. rawaan rawaan ba. rawaan léegi man mi kër bi ren Cheikh Abdoulaye Diop moo ko jël boppam en charge. waaw ah, balaa ñuy commencé dañuy wax ah, bisimilah rahmaani rahim. Hmm. waaw di leen nuyu bu baax. waaw ah, waa Leewtoo di leen gërëm te placement fee demee noonu. waaw man mi di kër moom dañ ko tàmm di ko def. Hmm. mais ren. dafa tombeek léegi mbër dëkk si si këram bu mu moomal boppam waaw léegi nag ñun waa ASECNA ak Daaru Rahman 1 ba 8 ah, waa Daaru ASC dex yi bon dañoo def benn mobilisation bu mag ak waa Comico mbër fu mooy fu mu jógee bon ñu ñëw def benn mamiru kër boo xam ne bu mag lay doon fii si terrain Daaru ñu si invité ñëpp ba pare di si gërëm ah, Cheikh Abdoulaye waaw Cheikh Abdoulaye Diop waaw parce que démb wax dëgg fa yàlla dañuy wax téléphone ak mbër ñu toog réunion nii rek mbër woo ko téléphone daf ko may libre mu jël téléphone bi mënuñu booy bu leen ah bu leen ragal dara lépp dina ko gérer te boo bon ñun dañoo nekk nit koo xam ni ñun amuñu kenn ku dul suñu mbër comme ni ko Mouride waxee naan ñun dañuy wuy si ndigal ñun boo ñun ñun ñun dañuy wuy si ndigalam moom. di wax loolu maanaam rafetlu affaire bi di invité ñëpp di lancer un appel que affaire bi le 26 lay doon mu en vingtième jour su koor gi. Ah, waa dimanche bi incha allah invité nañ ñëpp invité Sénégal yëpp. merci beaucoup waaw. am na solo kon gars yi beneen yoon rek gis ngeen guy gee ngi noonu ak ay façon ma ki manière am ci yéen ñëpp ñu ngi suivre waaw.